liggéey bu nu sëriñ bi tegoon ci loxoy opérateur économique yi la ñu ngi ñoom ñenn ñaa ngi nii taxaw ci sa gannaaw am na ñeneen ñu accès gul am na nag ñu tukki ah liñ li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy dañuy sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi bi ko commencé ak léegi defe naa ne dem na naa nga nangam wala ñaareel waaye yàlla di nañ ba gis nga bâtiment yi bari na ci yu pare am na yu noppi yu sotti. yooyu nag la ne ci taxawaay bi pour dem jël caabi ji teg ko ci loxol sëriñ bi comme ni mënu ko joxe woon waaye boo seetloo liggéey bi itam dañu ba ma nee alhamdulilah da ngay xool jàmbaar yi ñu àndal ay nit ñoo xam ne liggéey ndamal sëriñ bi rek leen yitteel moom la xëy di ci gont bi yàlla defee nuy dox di dox ba ak si fii nag ñu xalaat ni nañu dem joxe sëriñ bi caabi yi pare ndax sëriñ bi yittewoo nag xale yi dañoo war a commencé boo ko seetloo bâtiment yëpp peinture nañu leen lal yi ñu ngi ci biir bâtiment yi euh, def nañu euh, suba localisation bi yëpp branché nañu ko courant bi mi ngi dox li ci des rek mooy xanaa sant yàlla sant ñii nu àndal ñi nga xam ne ñoo ma jiitaloon di ay nit ñu baax ñoo xam ni liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñor na leen lool ndax bi ñu ko joxee de ba nu leen laajee alsete gi montant bi ñaata la dañ ñu wax ni six milliards quatre cent la ñoom nag ñu engagé ko bi ñu ko engagé dox ba léegi xam naa yëggunu yëggagunu foofu nag waaye ñaan nañu yàlla sànce bi fileeg jëmmi jamono ci kanam tuuti lépp nu yeggale ko yot ko sëriñ bi sëñ bi nag amunu payam mm-hmm. ndax dafa noo defloo lu nu bëggoon sopp ko lool muy liggéeyu Serigne Touba ku nu ci ku nu ko sant. am na nag bâtiment yoo xam ne des na finition euh, ñi ñu ngi ci sonn soññ daañu soññ mbokk yi nu ko bokkaloon ak ñi nga xam ne nekkuñu fi ak ñi nga xam ne seenu natt la ñu nattoon ak seegul ñu ngi leen di soññ xam ne liggéey bi des na ndax liggéeyu Serigne Touba euh, du yegg. dañ ci nekk rek ñun bu li yeggee fu sëñ bi joxoon ni dañ fay ànd ak moom rek. waaw yi war a jébbale tey defe naa ni ñaari immeuble yi la ñuy jébbale tey ñoom la ñu fini def finition yi pare na lal yëpp gis nga leen ni monté nañu ko lépp yegg na. waaw yi ay dëkkuwaay la yenn jànguwaay la boo ko gisee am na yeneen immeuble yu nekk nii ci gannaaw ak ci kanam eh, seen nga entreprise bi mu nga ci kaw di def finition. ñaan nañu yàlla fan yu néew ci kanam wala weer yu néew ci kanam ñu dikkaat jox ko yeneen yi. Euh, dëkkuwaay moo ci ëpp yi ni joxe tey dëkkuwaay ci ëpp ndax bu dul woon dëkkuwaay du am ay lal gis nga lal yaa ngi nii lalu xale yi di lal yu fakal yu dëgër yoo xam ne wax di yàlla ko jox donga daara dana ca mën a dëkk ndax ñii ci gannaaw yëpp ay ndonga daara la ñu woon waaye lal yi mënuñu koon am kon nag dañuy sant Serigne Mountakha dañuy sant sëñ bi. sant nañu waaye ñun ñoo ko war a sant moom mi nu liggéeyloo liggéeyu Serigne Touba.